dikkati naa màggatum ci ne day lu mu màggat màggat jommal gu ne lii nag dafa mel ni moom la l'enquête quotidien xam moo taxit waa yaaw am na ñu njort gu ñaaw ci élection locale yi ndax jàpp nañ ne ba fa ñu jëm président Macky Sall dafa bëgg dàq yi la élection l'info yéene kaay ne ñoom kay waa yeewi askan wi la ñu xamle moom moo di président Macky Sall nag nit ku bëgg sondage lay xayma dafa defi xayma ñu xamal ko ni élection locale yu 23 janvier 2022 yii boo ci duggee di nga am gàcce ndax yow président Macky Sall da koy ñàkk lii tax nag Macky Sall di def kéemtalaay kàttanam ngir dàq yile élection tribune yéene kaay ne waaye yeewi askan wi day ña nga ànd ak président Macky Sall dang dangi dem dang dangi ñëw ni xorondom ba pourvoi en cassation ndax nag préfet yi nee ñu la cour d'appel yi dogal ci liste yi maanaam dëggal leen daganal leen nanguwuñu ko jëfee nag moo tax ñoom it ñu dem fa ma xana doonee benn waxtu woowu ñoom préfet yi ci boppam critique yéene kaay di ma xamal ne ña ngay nag artu classe politique bi préfet bu moom dafa xamle ni manifestation ci voie publique dañ koy aaye réew mi quotidien ne sortie à deux vitesses laa fi gis la dagan ci kii baaxut ci kee ndax nag fii la waa nguur gi di doxantu te kenn aayewu leen ko Barthélemy Dias génn rek gars yi di rëf moo tax nag direct news samp laaj bu am solo ndax nguur gi ci boppam dañuy campagnal Barthélemy Dias tribune yéene kaay ne Barthélemy Dias kat lu mu génn ñu jàpp lii tax direct news moom it daal di ne man la ndax nguur gi day campagneel Barthélemy Dias tribune ko en tout cas Barthélemy Dias ni ki démb patam patamee nañ ko def ko ñaaw lool woom mi diri jagat jagatee yóbbu commissariat bu jëppal moom Barthélemy Dias ci tribune yéene kaay tuumaal commissaire Janko Mbaalo préfet bu ndakaaru Déthié Fall ci l'évidence yéeni kaay ne arrêté bu préfet bu ndakaaru bii di xamle ni ñun mënuñoo doxantu ci mbeddu ndakaaru yi man la concerné wuñ sursoanee yi dëgg-dëgg ci coow ak ci xeexoo la ñu jëm fii ci ndakaaru ab guérilla urben ndax nag ab xëccoo dina am diggante autorité administrative yi ak waa Yewwi askan wi ndax Barthélémy Dias la mu xamle moom moo di doxantoom yi da koy daal di wéyal de jox nag ay militant rendez-vous jeudi gii préfet bu ndakaaru nag xamle ni képp koo xam ne am nga manifester buñ autorisé wul daañu rëq sa ndigg fas yéene ànd ak Barthélemy Dias ca défier googu mu défier préfet bi l'enquête quotidienne Barthélemy Dias da cee yokku dina dem wuy ji premier décembre ca woolu gan ko woolu ca coowal Ndiaga Diouf la waxtu woowu tribune yéen kaay di ma xamal ne maam Ngor Ndiazaka nee na sondage yëpp xamale nan ni moom mooy nekk maire bu Tëngéej en tout cas fii ci Ndakaaru moom gaa yaa ngi campagne de gannaaw Barthélemy Dias moom soo am Wardini fas na yéene xamle bilan am l'exclusive yéen kaay moom di ma xamal ne élection locale yi nar ta yomb ci Benno Bokk Yaakaar benn yoon ndax foo Derklé rakku Farba Ngom moom moo def list boo xam ne bu parallèle ak bu Bennoo Bokk Yaakaar ñamere ca APR yëpp daw fekk biraan bokk ak moom list ndax nag foofee Aboubacar Sadikh Bèye lañ fa daal di tabb te moom nee ñu ay mag la daal di jël dugal leen ca list ba ay kàngam Bennoo Bokk Yaakaar bàyyi fa directeur général bu port daw wutali beneen list loo ci manti déggit réew mi tàng na te campagne bi dooragul critique yéene kaay ne ma préfet bi ci boppam daal dinay artu nag classe politique bi ci lépp loo xam ni mën na andi fitna ci élection locale yi yooyu la élection locale Issa Sall la ñu daal di tabb Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Mbour waaye cour d'appel bu Thiès daal dina koy déglu ba nuppi ndax dañu ne magistrat la moom Cheikh Issa Sall amul droit bokk ci élection Cheikh Issa Sall ne sama xel dal na de en tout cas magistrat yaa ngay ñurum ñurumee candidature Cheikh Issa Sall bi la tribune yoon ma nga yëngu waxtu woowu ndax juge bu conseil constitutionnel bii di Aminata Ly Ndiaye ak Doudou Ndir ñoom la ñu bëgg nag ñu daal di génn maanaam bàyyi daal Aminata Ly Ndiaye moom nee ñu day gérer société bii di Osmos nga xam ni wàllu pétrole moo ko tax a jug ca wàllu wa nag muy gérer seen i te loolee mënta nekk bu démissionné wul président Macky Sall ko war a dàq keneen ka moom mooy Doudou Ndir bu Sénat mandaam jeex na fanweeri fan ak benn ci weeru mai atub 2011 kon fukki at a ngi nii moom du Doudou Ndir mu nekk président Sénat te mandaam jeex booba réew maa ngi jëx-jëxi ci jafe-jafe ci wàllu élection locale yi Sud Quotidien jox kaddu Abdou Aziz Tall mi nekkoon ministre directeur de cabinet président de la République moom Abdou Aziz Tall ne ci bu nekkee dëgg dëgg ci wàllu démocratie lañu soxla moom moo di air bu baax ngelaw ngir nooyi gi neex waaye soxla wu ñu lacrymogène goo xam ne dafa ñuy fitnaal 24 heures yéen kaay ne Sénégal ñàkk dalam ak jàmmam ñëpp ko daal di seetlu ci tournée bi nga xam ne tàmbali na ko ca Kenya secrétaire d'état américain bii di Anthony Blinken daal dinay nag artu président Macky Sall xamal ko ne nag ci at yii ñu génn dañoo nemmeeku nag ci àdduna sax bari na ci dëkk yoo xam ne wàllu démocratie dafa daal di deltu ginnaaw ay kàngam institution di màkkaanuk réew ñu tàmbalee nag sax di dute xeexal ay journaliste ay militants yoo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama dong la ñuy xeex ñu leen di menacer ak di leen di agressé loolu nag moo war a dak Sud Quotidien ni njëgub gerte gi daal nañ koy fixé ren jii juróom fukk lañ koy daal di jaayee laas président Macky Sall ma ngay artu Assome Diatta bëgg nañu nag ñu saytu location gi fii ak décembre l'enquête quotidien l'université yi nekk ci réewum Sénégal daaray kawe yi loolu it lu jara saytu la kames daal dinay xamle ni résultat renam gi mësta am bon ba jéggi dayoo la def dëgg ñoo teree ñu ne acam ak Angélique nga xabu université bu Bambey la ko waral nag benn source xamal enquête ne jàngalekat yi ci boppam ñoo toogatul ci daara yu kawe yi déedéet yu public yi dañuy dem léegi di xar matt ci université privé yi las yéene kaay senegal Sénégal day dafa mel ni nga tëb dal cib xal defe na la beneenu tëb de ndax loo wax laal leneen xoolal ma rek agent yi nga xam ni ñoo nekk ci commissariat bu Kébémer ñoom ñëpp daanaka dañ leen mise à pied leen ndax nag Mansour Faye ci boppam moo leen kalaame moo yem ca seen ba embouteillage bu rëy Kébémer gaare ay camion ak i woto yu mag yu bari ci tali bi Mansour nag alal ni leen lii du yoon benn policier daal di dal ci kawam lii ba tey daanaka tax na Le Soleil yéene kaay séq waxtaan ak Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass xalif général bu Fayda Tijaniya mu xam leen ni dëgg dëgg wàllu politique warta woon réewum senegal ak doxalinam ndax laataa élection Sénégal day am te buntu jugit Sénégal dafiy des nañu teeyte daal lekk te yaru waaye tam rafetal jikko yi l'observateur ne bu dee dina rafetal de ah Sénégal day ñiy seen bopp moom yokk nañu te ci lu leer la général bi ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñu ngi ci fichier bi ci département bu Ndakaaru ñaari téeméer ak fanweer ak benn ci carte yu yees joxe nañ ko ñuy jaay seen bopp diggante janvier ak novembre 2021 te ci lim yooyee ñu lim lu toll ci ñaari téeméer ci ñoom maanaam ci ñuy jaay seen bopp dañoo am wopp jii di sida te ba tey bari na ci ñoom ñoo xam ne am nañ wopp ji te ñu ngi jaay seen bopp waaye tës wi tës wi l'observateur ne mooy tailleur bii di xale bu góor bi xeesal da lay def baayam bi am juróom-ñett fukket ak ko bay bay naaj fii la réew mi toll bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm